jëf ñoo ko bàyyi bi ci mariage bi maa ngi lay may daani may daani ma rek ma concentré wu ngir yàlla waa kay bay daan te école des jeunes marie dañuy waxtaanee jeg ji nga xam ne dañuy ñëw fekk seen jëkkër am doom maanaam doomu jiitle mhm. nga ñëw jëm ko féewale ak sa doom maanaam ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk benn baay nga war leen jubale su kaambay ngay jéeg ñëw mbaa xam nga ne su kaambay jéeg dafa war a tëddee njaaxaanaay ndax lépp looy def ëllëg da xalaat sa doom lépp loo def doomu jàmbur. Mhm. ëllëg sa doom dinañ ko ko fay. imagine toi su kaa am na xale boo xam ne ndeysaan moo tax tey thème bi ma andi ko li ma wax ni dama ko gis mu nekk loo xam ne chaque année day day day ndaw si day def la même chose mu nekk loo xam ne su kaa naan est-ce que jigéen bonam dina egsi fii. yow nga fekk sa jëkkër am doom su kaa nga boo bëggee ginaar da ngay bëgg boo bëggee ginaar da ngay bëgg ay cuujam. Mhm. mais munoon da bëgg sa jëkkër bañ ay doomam di ko wujjaleeg sa doom li gën a bon mooy jël sa doom di ko wujjaleeg sa doomu wujju mhm. ndax lan sa wujju nekk fa te yow yaa gën a placé wu pour defal sa doom kii yaayam nekk fa su kaa amee gis nga jirim xaw ma nu ko waxee nga xam ne amuñ yaay jirim la jirim la jirim am na yoo xam ne boo koy def nga mhm. yàlla bés bu lay fay sa sa sa sa bor bi nga ko lebal di nga xam ne jirim kenn du ko toroxal gis nga lu mel ni ay feetu korité ay feet tabaski bi wala ouverture bu ñëwee dangay gis li muy jëndal ay doomam du ko jëndal ki nga xam ne moom moom moom moom la yaayam nekkul ci kër ga lu mel ni korte xare bi barke alxuraan karim démb rek a ci mujj nee na man de événement bu ñëwee lu ci mel ni korte wala tabaski wala ay ouverture sama xel ci lay gën a dem sama yaay parce que dama naan tey sama yaay bu fi nekkoon sama sama morom buñ soloo lu baax man dinaa sol lu baax mais da gis korité bu jotee wala tabaski day xott ay doomam lu baax sukaa mbay mais xale bi la muy sol bu génnee ñun ñi dañ ko naan est ce que yow sa yaay sa tante gis na la pourtant danaan moom moo ma ko jëndal mu nekk lu bon lu ñaaw loo xam nit ñaa ngi koy def mais xamuñ lu ñuy def mais xamuñ lu ñuy def après yan yan conséquence la leen mën a andil parce que doom nawle la doomu jiit la nawle la parce que sa doomu jiit la sa doom la sukaa mbay sa doomu jëkkër la tey sa jëkkër jooju munoo fexe fexe fexe fexe ba doomam ak sa doom du benn deret bi ñoom ñoo bokk benn baay bokk benn gaño gi am na loo xam ne boo ko defee da féewale njaboot gi ndax yaa ngi jàngal sa doom concurrence waaye xale bi nga koy def yaa ngi koy jàngal loo xam ne àdduna bés dina ñëw mhm. même bu ñàkkee sax dina toog muñ ko bés dina ñëw même bu doon am benn yére sax dina ko fóot di ko sol te du ko déranger te yow te yow sa doom xalaatal ëllëg mm. sa doom mënul dëkk si ñàkk kon sa doom mënul dëkk ci ñàkk bañ a sol lu baax parce que li nga koy tàmmal day dem ba loolu lay foog ne loolooy àdduna te xale muumin la à chaque fois boo ko tàmmee affaire de defante ak diw affaire de defante ak sa doom baay day dem ba loolu la ñuy màggaale moo waral xale des fois bu ñu màggee nekk ay doom baay bu kii amee lii ñu ne diw am na lii lu tax man tam mënuma am lii parce que yaa ngi jàngal sa doom loo xam ne ñoom ñooy lor seen bopp ëllëg parce que bu ñu demee ba yow sa seen yaay nekkatoo fa mënoo koo ko defal sa papa mënatoo leen ko defal dañ ko uti feneen ci beneen anam te amaana sax yow du la neex ñoom ñu ngi koy def leen neex ma loolu mooy yaa ngi dóor doom làq doom waaye ak lu ci mënti am xamal ne ki ngay toroxal yaa ngi koy yaa ngi koy defar waaye ki nga jël def ko princesse yaa ngi koy yàq Souka Mbaye mu nekk loo xam ne su Souka dama ko gis te dama ko gis ku ko dund ba ci démb laa la waatal rek xale bi mu ngi wax mais sama rongo da doon kon nag bépp jeeg buy sëy fexeel ba ñaari doom yi nga xam ne ñu ngi bokk benn baay bu leen jéem a fewale boo mënut a yemale boo mënut a yemale Souka Mbaye ah defaral sa doom moo moo gën ngay defal boo defalee kii benn defal kii ñaar naa ko xoolal am sol yaaqa dàqale yëfu manquant yooyu yëfu kunkan yooyu mooy lan jeeg day nekk jeeg tëddee njaaxaay parce que xamoo doom bu lay jëriñ ëllëg xale bi bu màggee te yow xamoo suba dinga nga fekkee xamoo doo fekkee xamoo ndax ki ngay toroxal suba moo la yor te en général ñu bëri da gis bu ñu demee ba ba ba ba nga xam ne jot nañ doon waxambaane doom yooyu tey ñoom ñoo leen di yor doom yooyu tey ñoom ñoo leen di sagal doom yooyu tey ñoom ñoo leen daggal billet màkk ñuy dem ziyaar di ñëw te amaana bu nekkoon koo xam ne dalaa topp ci bon boobu du la defal kon na ñëpp xalaat ëllëg Souka Mbaye mu nekk loo xam ne métti na torop Omar waaw xam ne jigéen moom dañ naan ndey ji seex bu ne ndey ji seex rek dafa war a tëddee njaaxanaay waaw yenn saa yi ñu ne jaboot jaboot dafa di muñ te mm-hmm. yaa mm-hmm. xam des fois wolof dañuy wax ay wax yoo xam ne pour ay tegtal la ñu ne jaboot dafa di muñ te yaa ndey ji seex eh, njaaxanaay la war a tëddee yooyu yëpp parce que pour wan ne jigéen dafa war a yaatu maanaam boo jabootee eh, sa njaboot boo baaxee dëgg-dëgg du rek ñi nga jur ci sab meen waaye dañuy weesu sax sab meen parce que des fois nga dugg ci kër gis euh, jonguma joo xam ne doo xamee doomam ak doomu keneen loolu daal ñu naan jaboot xam ne jaboot kenn góor xam na kenn wax góor du bokk du terme yu ñuy utiliser ci góor lu bari ah diw de dafa jaboot bu ñu koy wax rek jigéen a tax. Hmm. parce que kooku day njaboote ba njaboot sax ñu dul ay doomam yoo xam ne tey jii moo leen nàmpal ci weenam ah, parce que xam na lan mooy rôlu jigéen. Hmm. ak jigéen taxawaay bu mu war a am. kon jigéen dafa war a weesu ni rek diw sama doom la ki laa war a toppatoo waxuma sax ki ba ki fi ndeyam jugee ñu naan njirim la ak yooyu mais keneen ku mënti doon ku nekk ci loxoom rek war na la mën a jàppee ni doomam parce que tey jii ëllëg yoo xamoo fu say doom di mujj. Mm-hmm. te yenn saa yi nga gis euh, koo xam ne du xiif du mar du tumuranke pourtant ay waajuram nekkatuñ fi dafa mel ne bor bi ay waajuram doon leble moom lañ koy fay loolu tax des fois li ngay defar doomu jàmbur yi li ci ëpp moom la lay fay si sa doom loolu yenn saa yi yàlla dalay may sensu jaamu yàlla sensu texe mais am na ñoo xam ne daf mel na ñoom bëgguñu ko parce que des fois xale bi fi ndeyam jógee mu doon njëriñ wala mu doon baayo yàlla euh, teg ko say loxo. Mm-hmm. kooku da ci war a jàmm yàlla. ba bu ëllëgee suñu borom fay la ko déjà waxuma dara bu imaginer rek bu tam jotee ñu naan da nga war a raay bopp njëriñ. Mm-hmm. Ah, maanaam yor. yëkkati dara jox ko na rek pour bégal ko parce que dafa am ay moment yoo xam ne damay gis ñu bari du ko def mu doon ay actes rafet bu dara xewee ñu jël ab daara alxuraan maanaam julli it tabaski wala korité mm-hmm. ñawal ay xale ñëw di leen ko jox mm-hmm. parce que moment yooyu xale yëpp duñu war a nuroo war ñu xam ki am ak ku amul loolu tax tey jii yow bu bul yem rek ci sa doom def ko tubéy parti rek képp ci boole mais mm-hmm. war nga jéem a xool sax ni xale bi suñu borom moo la ko séddee des fois loolu suñu borom rek moo la koy séddee pour nattoo la ko bu dee ni yow sa njaboot tey jii moom li nga leen di defal moom xaj na ci mais nga boole ko ci du wàññi dara dalay sax yokk kon loolu bokk na ci gàtt xel waaye itam bokk na ci ñàkk xam àddina parce que yow sa doom ji dara waxul ni dangay ngay di dund ak moom ba faw bis mun na ñëw nga bàyyi ko fi mu tegu ci yeneen lu loxo te boo sañoon ñu téel la ko ci jàmm. léegi nag foofu pour man ki ñàkk bopp mooy kilifa gi la chef de la famille mooy góor gi. yow yaay boroom kër gi mm-hmm. ki nga takk mu ñëw fekk beneen njaboot ci sa kër mm-hmm. kooku yow yaa ko war a jàppal ni doom ji nga jur ak ji nga jurul mm-hmm. nga war a yemale ci man parce que ñii ñëpp man may seen baay mais aussi tamit man fi may meree tamit yenn jigéen ñi am na ñoo xam ne duñ faatu day nekk ci kër di fa sëy ba xëy tas wala ñu fay dem mais bàyyi fu seen njaboot bàyyi fa ay xale yoo xam ne kenn mënulu leen dara au lieu ñoom ñu jël leen yóbbu mais dañuy obligé bàyyi leen gedd leen parce que man j'ai vu l'exemple am na yu ma ci gis waaw bàyyi leen ak seen papa am ñoo xam ne dañ leen ni gedd mu doon abandon boo xam ne tey jii euh, doom ji mooy subir conséquence par te man damay faral di wax leen ne ci côté sëy mm-hmm. mooy xale yi duñu responsable ci dara war ñu payer les kase cassés pa yaay ji jóge na fi tas na dee na wala papa ji ak yaay jubawuñu pour man xale bi situation boobu noonu mënut a ñàkk ci sëy mais xale bi kenn war ko dugal ci loolu li war yaay ji ci xale bi na koy def mais li war baay bi na koy def pour man xale dafa doon muuni ku mënul morom boppam dara sama papa dafa ma ko daan wax ku mënul boppam dara la war di mënal te xale mooy ki mënul boppam dara dañ ko war di mënal kon nag euh, taxawaay boobu yenn jigéen ñi di am di wujje bay wujje ci doom joo xam ne juruñu ko loolu jaru ko mais aussi tamit yenn yi tamit kooku ngay gis noonu nga foog dafa baax ci njabootam baaxul ci njabootam di di nga bàyyi ma di nga boo di nga ni nga mel ci sa njaboot mhm. noonu ngay mel ci njabootu jàmbur yi di nga nga foog ni noonu lay toppatoo ay njabootam billaay toppatoowu leen da leen yàq. Mhm. ndaxte li muy def ci njaboot googu noonu loolu lépp ci njabootam lay këpp ëllëg. dëgg la waaw jërëjëf Didi xam naa comme kii mu ngi soññee temps bi am na lu ma bëggoon a jox ndaw si am lu ma bëgg jox waaj mhm. waaye damay bàyyi yooyu yëpp. Euh, waa commencé euh, ci kàddu goo xam ni mhm. euh, meilleur comédien mii da koy faral di wax alaaji ma gis nga xale bu ci nekk yàlla na nga nangoo doon yàlla na nga daje ci ñu lay teg loolu. na nga xool xale yi ñu koy teg waaw. métital kooku formation la. Mm-hmm. xoolal ndey yi nekk ci kër yi jël seen doom aj ca kaw jël doomi jàmbur di ko di ko di ko di xale yooyu ñoo mujjee kër gi sans souvent dañuy am jom dañuy nangoo liggéey yàlla da di dimbali parce que formation la. léegi xoolal ñaari ki jël doomam teg ko ci kaw dëggul dara metti ko bëggul na di aj ajal ñàkk jom ñaan ñaan ataaya ñaan café grand may ma cent francs foofu yoroo foofu dara temps yi nangam tux def lu bon ñàkk jom amuñ cest à formation la ñuy defal xale bi moo tax xale bu amul sens ñu teg la loolu rek amugoo sens loolu dama maa ngi koy jox xale yi di wax ni ki koy dund ci kër gi na ko muñ ndax alxuraan neen li kulli sabaarin sàkkurun muñ kat boo gi sant lay mujjee te alxuraan moom lu wax dëgg la benn bi mooy man dama jàpp ni ku góor gi am na nag nu muy taxawee loolu mën na am ci kër gi sukaa man foog naa ni bu fekkee ni waa ji daa yor soxna yi soxna si ci yorin bu baax mu sëy si jëlul aawo yi maanaam yaayu doom ji di ko wujjeele ak waa ji problème du am mais imaginer tey di di ñëw nekk sama soxna mu fekk fi doom ci kër gi su ma amee lu ma naqari ci di di yaayu xale bi laa koy laa koy faje maanaam cey bul woon sa yaay cey sa yaay li ma li ma defal cey sa yaay fi ma féete woon cey sa yaay li ma nàngam léegi cey sa yaay googu day dem ba léegi didi mii xale bee nekk wujjam lim la mënta teg mu naqare da koy teg xale bi moo waral soo génnee muy te xale bi souffrance di ko métital bu waree añ du ko may añ bu waree sang du ko nang buy sang sang ay doomam bu kii bàyyi bu jëndalee yëre ay mu jël yu baax yi jox ay doomam jël nangam parce que yaa jël xale bi def ko wujj ak sa jabar ma jàpp nag loolu warul nekk en tout cas daal man de ñeenaa bépp xale bu ko teg ndax formation la en tout cas nag baaxul ci kër benn yaay waru koo teg doom te sukk jur mais dama jàpp xale bi ñu ko teg dama gis souvent day am différence xale bi nga xam ne dañ koy dul dañ koy gam-gam leen waaw xam nga jigéen ñi dafa dañoo am ay extrémité jigéen yi te léegi jigéen ju baax lool te léegi gis jigéen ju bon lool parce que dafa am yenn mbon yoo xam ni yenn baax yi ci jigéen nga koy fekk de yenn baax yi ci nga jigéen day defar góor jigéen ju baax da gis jigéen ju baax joo xam ni sax góor gu moo tax ñu wax ne la bu góor siisee sax amul problème jabar ja mën na ko jubbanti mën na ko lool léeg-léeg nga gis góor gu siis goo xamante ni gi jabar ji lu muy teg naan ñëw leen añ ñëw leen kii di wootee a yàkkale bu ko defee waaj di mer mais du ci mën dara ji waa ji du ci man dara bool yi di ko bu ñuy yekkale di kii ak affaire yooyu waa ji xolam day tàng. Ah, eh, loolu ci góor gu siis la mais moo tax loolu yëpp du feeñ ci biir kër li feeñ ci biir kër mooy li jigéen di def parce jigéen ñoom ñoo yore kër yi ñoom lañuy ñuy xale yeeg et cetera maanaam dañu war a yaatu mais da gis jigéen joo xam ni dafa bon trop nga gis loo xamante ni bi yenn yi góor du ko ñemee def du ko xalaatu ko sax mais da ngay gis jigéen moom di def loolu te li muy def noonu baaxut ci njabootam mooy édition bi doon expliqué sax baaxut ci njabootam maanaam ca kam koy def moom ka gën ci moom parce que par àddina am na ñoo xam ne Eh, ni ñu leen yombalalee àddina moo tax seen àddina jafe parce àddina waaw am na nu muy yombee rek eh, day dem ba mu gi da ngay dem ba tool toll ci war a def lépp jafe ci yow c'est parce que lépp daa yomboon ci yow donc nag bu fekkee lépp dafa yomboon ci yow lépp de mais ñi nga xam ne nag dañ leen di tegal ay ndëgg sërëx doon gar xale bu ndaw ñu lay yónni heure de crime di la def loo yenn yi ki la koy def yëpp jublu ci léeg-léeg nga tëdd dem bay nelaw ñu ne la pëkk pëkk nga jóg ñu ne la demal raxas bool yi demal bale lii demal def lële kooku mi ngi lay def ci yow formation boo xam ni xol bu toj ngay def bu dee jigéen sa xol day toj bu dee góor tamit dañ lay def mais góor dëgg daal nga mën a conséquence mën na yàq nit aussi. waaw xam nga ak xol bi mën naa yàq xol nga pareen saay. dafa nga gis nit ñu dëgër fekk. loolu pareen saay waaw euh, pareen saay mën na kii mais bon lu ci bari day jariñ ñi nga xamante ne bi ñooy kii yi. lu ci bari day jariñ ñi nga xam ne mooy kii yi mais gis nga euh, njaboot dafa yaatu parce que gis nga am na ñoo xam ni tey ñoo yóbbu seen wujju yaay màkka ñoo ko teral <laughs> defal ko lépp am na jigéen ñoo xam ne sëy nañ ci kër amuñu fa doom mais dem ba nekk mag doomu keneen ki mhm. jël leen mhm. euh, nga xam ne daanaka yaayoo dañ leen ñëpp dañ leen def ne tuddee leen yaay mhm. donc moo tax jigéen lu mu bëgg mën na ko am donc léegi li nga war a li ñu war a sensibiliser mooy jigéen ñu delloo ci seen xel euh, te xam ni doom ji jariñ sunu borom rek koo xam bul jàpp ni ki nga jur rek la jariñ am na ñoo xam ne da nga leen di jur duñ la jariñ dara <laughs> saa gis benn waay koo xam ni dafa waxoon dafa waxoon dama waxoon papa papa ji ak yaay ji ne daa jab-jab yu bett bu ngeen deful dàkk <laughs> di leen tëkku ah. di tëkku papa ji ak yaay ji mm. ama kooku toll na foo xamante ni fii te yaayam ak ki dañu sonnoon ci moom maanaam mm. lii ngay wax nii noonu lañ ko doon maanaam dañ ko doon bengi bengal di ko neng nengal mm. lu nañu ko koy defal comprendre nga bu bëgg leen ko laal même bu fekkee ne wujj yaay ja wax na sax ñu dal ci kawam comprendre nga mais dem na ba nga xamante ni bi euh, yàqu na yàqu goo xamante ni bi te ñoom ñoo ko yàq donc pare saay juste milieu dafa baax xale am na loo xamante ni bi bu tooñee da ngay nangu ne tooñ da ngay def booy da nga koy defar mm-hmm. am na yoo xamante ni bi bu mu nooy bu mu ëpp waaye tamit am na yoo xamante ni bi tamit da nga ko ko a defar pare saay da nga dégg nit koo xam ni day am fi may jaar laa bëgg samay doom jaar méttit bi ma jaar am na ñoo xam ni rythme boobu la doxee mm-hmm. am na koo xamante kii tey day doon lu ci jamono ji moom nee eh, ci lampe pétrole la ñu jàngee léegi doom du duñu yàq courant bi léegi. taal leen sondel taal leen sondel man dama daan def nii. xam nga xam nga loolu. yaa ngi torturé te loolu c'est dépassé loolu sa jamono la woon. Mm. mais peut-être bu nekkoon jamono ji sa papa wutal la lampe yi. Mm. nga ngay taal di jàng waaye mhm. jamonoy sondeel nga tombee loon bu tondee jamonoy sondeel na sama doom nag il faut ñu xam lu metti dinañ dudd jamonoy sondeel te nekkuñ ci période sondeel yooyu mooy yenn problème yi nga xam ne mooy dem mais li gën daal mhm. mooy jigéen ñi nañu gën a delloo seen te xam ne ñooy borom ñooy defar kër yi euh, ñoom ñooy régler kër yi mhm. donc tamit ñoom bu ñu dérégler rek musiba day am nañu régler dëgg la euh, gis nga euh, doom kii la rek doo xam kan mooy weri fóot la rek doo xam kan mooy weri mm-hmm. di nga jël sa doom nga jël nga ëmb juróom-ñeenti weer nga ni xaaral ñu xaar parce que kii damaa bëgg lii te doo fekkee njariñam kon donc voilà ah, du la njariñ mm-hmm. kon mën na jariñ tamit sa wujju mm-hmm. lépp mais du te xol lépp lépp xol la xam nga jël doomu jàmbur koo xam ne yow sa jë sa jëkkër moo la ko boo ko jëlee boo ko defee ni sa doom rek ak bët bi ngay xool sa doom boo ko xoolee doo am problème mais imagine xale bu jigéen boo ko defee sax waa koñ ba dañ lay sopp comme li muy wax nii naan waa dañuy mere kii koy parce que koy mere boo nit ki loolu def doomu jàmm man man j'ai horreur ngay maltraité doomu jàmm bëgguma loolu parce que du àdduna nit da ngay leble te gis nga xale loo ko lebal dala ko fay xale du fàtte tey soo ko romboon koŋ boo boo ko di maltraité doomu jàmbur te sa doom doo ko maltraité yu loolu yàlla nañ ci yàlla musal mm-hmm. parce que lu metti la ci xol imagine war ko jox mu lekk du lekk war a fóot moom nga ne ko wala nga ne ko fóotal sa yére sa yére bopp góor gu xale bu ndaw nga di ko def yenn yi doo ko solal daal ak dëkk bi ni mu mettee mm-hmm. nga di ko teg kon kooku kooku amul xol kon bëgg lu bàyyi bi mm-hmm. macha allah sukaa mbay kàddu yu rafet na da gaaw a jooy nag may daal di xool bee rafet <laughs> kon nag mu nekk nekkoon mu nekkoon euh, suñu rubrique école des jeunes mariés. di wax ne man amaguma amaguma waaye su maa samay doomu doomu ñoom maa ngi leen di ñaanal sama doomu sama doomu yooyu yooyu nga xam dañ maa bëgg. Mm-hmm. dañ maa bëgg dañ may def ci seen dañ may taf ci seen xol dañ maa bëgg lool. ñoom ma di wax ni mais mais am loo xam ne jaaxal kenn di di xam nga yow bu dee doom yi nga jur sax yow. Mm-hmm. da nga am gënalante ba mu fees. Mm-hmm. boobu doomu jàmbur ñooy nekk ci yow moom nan lay demee. Ah, maanaam am na ñoo xam ne ñoom ay doom day am. am na ñoo xam ne doom yi jur laalo la. nañ leen di gën leen te da ciy ba doom yi xam ko ñoom seen biir seen i ndey xam ko. Ah. yaa ngi xam sa xarit lay yaa ngi loolu bu dee loolu nagam nit. nit dina def loolu mais kooku man de loolu dalu ko. waaw Mifidel Sodo man mi de comme sama doom kii laa gën a bëgg kii laa gën a bëgg. am na ku nekk am na kii sa xarit la non non man mi ay kii mooy sama xarit rek kii laa gën a bëgg est-ce que loolu mën na ne. non man loolu am na ñoo xam ne dañ koy fas. mais non ça loolu dafa mënta nekk sax kii laa gën a bëgg kii laa moom. am na de am na de am na ñu ci loolu am na ñu koy dégg. bëgg a bëgg. Hmm. non man mii de loolu daal ma ay kii laa gën a bëgg. am am na préféré. am am na préféré. man daal xam naa ne daal ki wéerut daal moom laa gën a bëgg ba ba muy wér. waaw ki waa waaw su wéree nag moom waaw. <laughs> Eh, pare nga ci. waaw yaa ngi ñëpp a yem. waaw ndox nag man sama yaay na sama yaay na dafa am man sama yaay comme sama yaay nii. Hmm. ay dama bàyyi mu nekkoon xaritam. sama mag bi gaañu. xaritam na du ko bëgg parce que dafa feebaroon. ah waaw mooy feebar. ku feebar ñu bëgg la voilà mais dafa amoon cofeel ci moom bi mu gaañoo dañuy sama ñeyu xare dem na. voilà léegi yow yaay béyu xare bi. waaw mais béyu xare bi waaw mais nangu naa. su kaa bay mu nekkoon li nga xam ne. sama tëj man ah daa daa non non moom nag sërëm bi xaritam la. waaw donc sama cofeel la waaw loolu la ma caba waxoon. mu ne ba na bàyyi ba émission bi jeex. bàyyi ba jeex mais loolu day am ñoo xam ne. Euh, dañuy bëggante seen biir man dama koy xool suñu famille su Kambay man dama naan alhamdulilah jërëjëf bi ñu amee mm-hmm. maam yi nga xam ne euh, def nañ seen i doom def seen i njaboot ba munoo xam kii kii ko jur kii kii jur gis nga sama nijaay Alice ak sama nijaay Abdou wala sama yaay buñ toogee mënoo xam ñii ndax bokk nañ ndey ak baay wala bokkuñ ndey ak baay dafa am benn complicité bu nekk ci biir doo sax comprendre te sama sama sama sama nijaay ak ak ak ñoom Moussa Cissé tellement tamit ñoom tamit pareil gis nga bi may ñëw nii suba rek sama nijaay ma woone ma damaa kontaan ma ne ko lan la mu ne ma gis nga nomination bi nga xam ne moom lañ nommé ki nga xam moom moo di euh, Mbaye Cissé général Mbaye Cissé tellement que da ko ko yéene da ko ko yéene parce que loolu seen seen seeni euh, yaay yi ñoo ko def si ñoom mu nekk loo xam ne su kaa Mbaye dafa neex si famille daal mu ne ma boo demee nga wax famille bi yëpp kontaan nañ ci moom mu ko mu nee loo xam ne su kaa doo sax comprendre bul jooy nag Mbaye daal di da ko <laughs> di waxaat encore une fois ak xëy moom war nañ koy teg plateau xëy bu amee ku fi jooy dañ laa war a jooy. xiir waaw ku fi war a jooy dañ laa war a xiir. Ah. may la loo jooy may la loo jooy. Ah, waaw di kontaan bu baax sukaa mbay ci samay nijaay yooyu di kontaan encore une fois euh, ki nga xam moom di général Mbaye Cissé di ko waxaat encore une fois di ko félicité yéen bi ko yéen yal na oyof Mbaye Cissé Ngaari Njar Mbeew nee lii du chance mérite la mm, mm. yal na ci yeneen yeneen yeneen yu gën topp kon nag sukaa lii moo nekkoon li nga xam moo di seen rubrique école des jeunes mariés di la jox dig daje ba àllarba incha allah ci beneen euh, mu euh,